asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 15 octobre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi mu mel ne ki nag tey sunu lamb la ñuy xëy commencé ko yëglekaay bi nag tey dafa xëy ñëw ci li nga xam ne nii daal fi mu nekk nii mooy coow ci dëkk bi moo xam Eumeu Sène la moo xam Tapha Tine ak Ama Baldé la wala Ama Baldé ak ki nga xam ne nii moo di Modou Lo wala sax ñu bëgg combat ba bu dee mbirum Eumeu seen la moom yëglikaay bi di sunu làmb ngu mu ngi ñu xëy wan ñu Eumeu mu nga dóor sënu ba yor sangoor ga di ñaan ne jàkk di xool yëglikaay bi nag nee na ko Eumeu day jàppal lii ma lay wax moom boo ko deful di nga uti meneen pexe maanaam jël Tapha Tine wala Lac de Guiers numéro 2 wala boog nga def année balance bañ a bëre sunu lam ne ne ko daal yi moom faw nga tànn ci moom def leen maanaam bëreeg Tapha Tine mu bawal Lac de Guiers 2 mu géejawaay mu ñetteelu combat wala boog nga nangoo def année balance maanaam bañ a bëri sunu làmb xëy tey ñëw wax Eumeu seen ne na ko loolu daal lay def wala mu seet neneen noo xam ne moom lay doxale sunu làmb xëy di wax lu ne mel keneen koo xam ne nii moom utaloon nañ ko adversaire ba mu war a bëre muy ki nga xam ne nii moo di Tapha Tine muy digganteem ak Ama Baldé combat ba nag mujj a tàbbi géej mu mel ni ki nag ba loola amee moom kii di promoteur ba dafa doon ut koo xam ne moom lay remplacer ki nga xam ne mooy Ama Baldé ma bañ ka mu uti woon nag moo di guy gi waaye ba mu ko utee ba ñëw nag tafaatin day nee na ku bëriwuma ak guy gi wala boog ña yor tafaatin mu mel ni kon sunu làmb xëy tamit wax ñu lu mel noonu mel ni ki daal bu doon bi dañoo bëggoon a def maanaam mbirum saase cab ci bi coppet cabee teg ca ba ca des su ngir mu dem tafaa moom lànk naa ko kandaare nee na jëlut guy gi tey suba waxi noppi loolu yëglikaay ba moonu ko xëy wax waaye ka mu ko waroon a séqal di Ama diggante digganteem ak Modou ba ñu wax nag ne Luc ko mbu nga ca suñu làmb xëy sampab laaj ne Luc Nicolaï ndax li mu bëgg a tëgg muy Modou Lo ak Ama Baldé ji est-ce que Luc ay moyam may na ko mu tëgg li nga xam ne ni moom la bëgg muy ambition ba mu am muy tëgg ama ak Moodu ndax nag yëglikaay bi nee na combat ba la mu a laaj xaalis nar naa bëri lool lool lool lool lool ndax Moodu Lo fi mu nekk nii day yaakaar nañ ne ku tëgg digganteem ak ama dina ca xam ne day ba muy bëre ba tey est-ce que mas na koo fayeku la tax na ci yaakaar ne war na mën a bëre ak kii di Moodu te bu amee lam ca am ci xaalis nar naa bari lool beneen combat boo xam ne nii tëgg nañ ko ba mu taxaw ka ko def moo di jëy production yëglikaay bi di sunu lamb xëy wax ñu ko muy ki nga xam ne moo di caatu yoof ba nekk écrit yoof ak ki nga xam ne moo di bébé julde ba nekk école li Seex Mbàbba mu mel ne ki nag yëglekaay bi nañu lu day combat ba ci xalima ak Abdoulaye Dembélé taxawal nañu ko nag muy combat espoir boo xam ne tamit bu nara neex la leneen loo xam ne ni tamit gis nañ ko ci yëglekaay bi di sunu làmb muy ki nga xam ne nii day moo di Mor Yekini ba nekk ca ca Rock Énergie Mor Yekini nag ay adversaire am la xëy di wax ak ñoom nee na ki nga xam ne nii moo di Gris 2 bu Kuwens bu Lamsar Jean Kayre ak ki nga xam ne moo di doomu dàngu daal nee na ñii moom ñoo di ay adversaire am moo di Yékini nee na leen mu gudd mu gàtt yéen dong laa war a bërin te ku ci ñeme amu fit ñëwal nga bëri ak man moo gën moytu bi ak dugg-dugg yeeg yu mel ni ki noonu yëglikaay bii nga xam ne ni moom moo di suñu làmb xëy tey wax ñu lu mel ni ki noonu waaye am na leneen loo xam ne nii day jàppal muy li nga xam ne nii day tan cay dem continuer ca muy li nga xam ne nii day moo di écrit bi ñuy wax kaay baax mu mel ni écrit kaay baax nag moom seeni mbir day baax na lool boo bëggee dégg dëgg ndax nag lu toll ci fanweeri combat daal bëre nañ ko am ca 19 victoire ak 11 défaite yëglikaay bi ni sunu làmb xëy tey ñëw wax ñu ko wan ñu ko nga xam ne moo di Arobas ak Albouri mu mel ni ko daan mu mel ni ki daal kaay baax ba ca tëngeej moom ah loo ci mën a dégg day ñu ngay baaxle jàppal Arobas Boy ak ki nga xam ne ni day moo di Wally ñoom day jàpp nañ ne ay satisfaction totale lañ ci écrit ba Abdou Guèye Albouri ak Abo itam ñoom seen bilan daa jaxasoo saful suukar saful xorom maanaam yëglikaay baa nu xëy wax nu ko waaye ki nga xam ne nii day moo di Valdo Petit Kona ak Boy fay ak ki nga xam ne nii day mooy tafaatin numéro 2 ñoom itam assuré nañu bu baax a baax a baax waaye ki nga xam ne nii day moo di caatu limousine ak ki nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy lion di jolof ñoom itam day seeni mbir mooy loolu waaye leneen loo tamit ba tey yëglikaay ba na ko fa muy nga xam ne nii day moo di Ibou Ndafa numéro 2 moom daal ak ki nga xam ne nii day moo di doomu jalaaw jalaaw deux ñoom tam daal daa mel ni seeni affaire dese naa dox waaye ki nga xam ne nag mooy jalaaw mu mag ma moom di tête de ba moom des koo gisatu ak ay bët yëglikaay bi moo xëy ñëw wax nu ko mu mel ni kii nag juróom-ñaari promoteur ñoo tëgg li nga xam ne moo di écrit booba wala seen combat yooya mel ni kii nag Amath Konaté moom di seen ab coach mu ngay wax ca la nga xam ne nii day moom la ñu liggéey ci ak baaxaay mu mel ni kii daal loolu yëglikaay bi xëy na tey ñëw wax nu ko ci écrit bi nga xam ne nii moom moo di écrit kaay baax waaye bu ñu demee fa nga xam ne tamit mooy ca Leewtoo TV mu mel ni kii nag Mbaye Ngoni Fall ma ca seen TV day mu la xëy di fa wax moom ci diggante ki nga xam ne moo di Balla gay ak Eumeu seen waaye sax booy Niang ak yeneen i combat yoo xam ne daal mu nga xëy di ko fa wax moom mi nga xam ne nii moo di Mbaye Ngoné Fall waaye bu ñu demee ci Leewtoo point moom li leer ba leer day am moo di nga xam ne nii day ñooy ña nekk Adrien Senghor Jax nag daa jàpp ne day tëgg le 27 1 million ca Iba Mar la koy teg ñoom itam ñu ne lii ma lay wax moom moom màggal ga ñëw na tey la mardi ginnaaw suba la ci alxames ji kuy dem ak foo mën a jóge yàlla na nga départ ci jàmm arrivé ci jàmm màggal ci jàmm ñibbiwaat ci jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke si Ahmadou Bamba lii de laa ñaan man te defe naa itam moom la ñëpp di ñaan jàmm daal yàlla na yàgg ci àddina bi waaye rawatina fii nuy waxe nun muy Sénégal mbokk waa Leewtoo TV ni leen di nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àlloon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu bi Babacar maa nuyu di la sant di la ziar. Ndeye Coumba Fall Seri Dadi maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di ko saako ci di ko ñaanal ñëpp mais am na ku ñuy wax Cheikh Fall yóbbante na ma ci yow nee na sara neex na ko lool mu nga ba Brésil Cheikh Fall. waaw kooku sama euh, maa ngi koy nuyu daal. Euh, Babacar na ñëw nag si jàngatu arène bi euh, ni ñëw ak sunu làmb Leewtoo TV ak Leewtoo point net euh, tey nag sunu làmb dafa xëy ak di samp benn laaj ne Eumeu seen ñetti choix la am soit mu bëree ak Tapha la Lac de wala mu def saison blanche Babacar te foog naan tamit ancien roi waru def saison blanche. mu jël Tapha wala Lac wala année balance maanaam daal fi mu nekk nii looloo fi nekk bu ko deful du sotti waaw diggante mag Tapha day combat jànq la. te man dama naan tafaatin Eumeu Sène dafa valable lu war a mën a am la te defe naa it luy neexal làmb la parce que làmb ji pour man suñu bëggee mu mu dox dëgg il faut ñu tamit ñu ren ñu fexe ay combat jànq am ren loolu war na man su ma sañoon saison ren bi noonu lay demee Lac ak itam lu jaadu troisième combat parce que match nil na ñu ñëw Eumeu daan ko Lac it soxla na fayeeku kon yaakaar naa loolu war na mën a ne waaye yaakaar naa ne Lac de Guiers numéro 2 Gris Bordeaux jànq la man loolu bëgg naa ko Tafatine Eumeu Sène combat jànq la bëgg naa ko Boy Niang Balla Gaye 2 combat jànq la bëgg naa ko ndax faw ma sens am Ama Baldé Modou Lo combat jànq la bëgg naa ko rëg-rëg Bombardier même bëgg naa ko lu war a mën a nekk la làmb la. ñoom ñaar du ñu bëree ñu. rëg waaw kon kon Bombardier ñu ñu jox ko keneen balaa dem retraite waaw même Boy bombar Bombardier baax na yaa ngi dégg. waaw maa ngi jox xale yi sens quoi ay Yékini Senior gars yi jël leen ay Papa Sow ay Siteu ay Garga Mbossé ay Malick Niang xam nga Modou Anta bu Thiès ama neex mbër ñu ngi fi il faut que ñu mayante chance def leen ren loo xam ne ni daal maanaam ay combat jànq la. VIP jox jeune espoir yuy yéeg ay chance loolu soo ko defee sax dina am ay combat yoo xam ne sax combat revanche par anticipation tey par exemple soo joxee Bombardier jox ko Yékini Junior day mel ni Yékini ak Bombardier voilà day neex sax Yékini Junior Bombardier war na mën a neex mu may ko sens parce que comme moom léegi voilà benn at ko dese kon war na moom moom moom war na mën a may xale yi sens bëre ak ñoom ku ko ci neex mu tànn ko parce que moom dama naan Bombardier tey moom nga xam ne amatul lu muy prouver parce que dégg na yoon kenn defagu ko carrière am jeex na kon defe naa amatul lu muy prouver si làmba Eumeu Sène nag quant mu def année balance defe naa loolu ci moom lay dépendre su ko neexee du def année balance

<laughs> doxalu wi nee ñi nag euh, ki nga xam ne Pape Abdou Fall bu mu euh, perte ki nga xam ne mooy Ama Balde mi ngi dox daal euh, guy gi pour mu remplacer Ama Balde mu nekk guy gi ak ak Tafatine mais dafa mel ni guy gi moom soxlawul combat boobu. guy gi moo soxlawul. tafaatin moo soxlawul lool. voilà waaw loolu la ñu wax daal maanaam comme da ko bëggoon def su mbul bañee làmbaay nangu far nag mbul ak làmbaay yëpp bañandoo maanaam loolu moom dana doy waar bu fekkonte ne dañu waaw tafaatin ak ak ak guy gi war na mën a nekk. combat revanche parce que li may wax rek guy gi Tafa da daan te yaakaar naa ku la daan soxla nga revanche Abdou Fall nag bu amoon yéene boole leen Tafa bañ xëy na Tafa am na raison conseiller parce mbër nu que waru toog rek xanaa làmb nekkul liggéeyam. waaw moom kay mooy to mooy moom dafa doy waar quoi am nañ ay conseils sax de mais xëy euh, dafa am loo xam ne nii su yàggee ba yàgg ba yàgg ñoom seen wàllu bopp la dul amal njariñ te effectivement loolu moo leen dal. nga naan diw yaag diw mu ne la du ma ak moom nang non non non parce pour man am na ci combat bu ñu ko waxee rek jaadu na mbër moo bëreel nga daan ko kooku làmb da leen boolewaat su liggéey ba def lu mu war a Tafatin ak Ama Balde bi ñu doon wax tey ba waroon bañ na taxawoon na lu ko indiwaat parce que Tafatin dafa defaat ay performance parce que Ama da koo daanoon guy gi tamit defaat na ay performance yaa ngi dégg kon c'est très normal su valable nga jël Ama Balde pour man valable na nga jël ki nga xam ne mooy guy gi bu fekkee ci cadre sport la ñuy wax yaa ngi dégg bu fekkente ne nag ci beneen cadre la ñuy wax mag nag bu xëyee toog këram ne du ma ndékki du ma añ te ah, te di yàlla am jëmm ku ci xuloog da koy tooñ da nga koy bàyyi kay mu xiif ba xam lu xiif di saf waaw loolu am na solo Babacar ñu jóge si combat yi dem si bilan yi te nag ñi ngi dalal écurie bu baax kaay baax ñoom daal def nañu trente combats je pense que c' est un record si si saison bi nu génn 30 combats 19 victoires lañ si am ak 11 défaites nañu daal def nañ jéego bu yaatu. bien sûr waaw écurie kaay baax moom vraiment ren moom seen macha allah la ñu parce que lii ñu am nii defe naa bëriwul écurie yu ko am 30 combats 19 victoires 11 défaites loolu moom am na écurie yoo xam ne sax amuñu sax 11 combats. waaw kon yaakaar naa ñoom tamit loolu boo ko gisee tamit management bu baax bu baax da koy faral di indi waaw ñu ci nuyu ku mel ni seen manager di maam ñaaw di jeune nekk bureau de managers yore écrit ba moom tamit ànd ak mag yi manager yi di ko doxal nekk xale boo xam ne tamit defe naa ne xale la bu am yar te itam ku taxawaayam rafet la maam ñaaw moomu nekk étudiant INSEPS moom moo leen di manager kon yaakaar naa lu mel ni résultat bi leen su fa amee yaakaar naa ne management bi am na ci solo kon dañuy wax rek ne euh, li may wax daal mooy nit ku ne fa mu mëne nañ ko fa teg parce que yaakaar naa bu ñu ko fa tegee dina war a mën a doxal. loolu am na solo Babacar ñu dem nag si Dieye Dieye ginnaaw bu mu jógee vacances def tournée européenne ñëw na nag taxawal na benn combat démb nee ñu diggante Bébé Diouldé la ak Thiatou Yoff comme ni nga koy waxee rek combat neex la. waaw combat histoire bu neex Dieye seen temps yi ne na dafa demoon tournée vacances Europe. ñu nekk lay dem vacances. Dieye ah xati Dieye mbaa mu ne bokk nañ garage bokk nañu garage de. may def mécanique muy def tôlier. sand course. ci seen borom. mi ngi gàddu ay millions. Ah, waa àddina tëdde noonu. ndey kumba ah. olof yi dañ ne ku doon may sa nuñ nu ko olof ja waaw kenn du ñàkk waaye nag euh, ñun tamit dañ waaw dañ koy ñaanal yàlla rek xam nga moom xale la boo xam ne ni am na ambition jiey tëgg na combat bu neex diggante caatu yof ak bébé julde vraiment combat la bu neex a neex neex na te yaakaar na amateur boo tegal loolu jour ji dana ñëw setaan si ko ndax combat bu neex la kon ñu koy nuyu di ko jaar moom jéey di wax ne que tamit ñaanal promoteur yëpp ku ci ne rek parce que actuellement ñu ngi dox yal na leen yàlla dimbali ba li ñu dox lépp rek ñu mën ko réussir quoi waaw parce que loolu am solo la. loolu am solo la Babacar ñu jógee nag si bëre doo ñëw nag si bëre simple dem nag ba Leewtoo point net foofu nag ñuy xamal ni que vingt 27 moom dina am ñaari combat télescopage lay doon diggante Ngor Semou mi nga xam ne mooy tëgg Adrien Senghor def fa mise bu 500000 maanaam genn wàll million ak Jax bi nga xam ni dafa programmé woon gala bi ak euh, Iba Mar Diop mais léegi ba euh, bu ñuy yegg si studio mi ngi ñuy wax ni que nekkatul léegi Iba Mar euh, terrain gal gi mise bu million te mbër bu ñëw. soo indee sa inscription da koy delloo Babacar nag télescopage moom dina nekk loo xam ne dina doy waar comme ni nga koy waxee. waaw dina doy waar moom parce que télescopage boobu yaakaar naa warul woon a a am wala suy am sax na mën na am sax parce que mën nañu région de Dakar léegi valable na pour nga tëgg fii kii tëgg fii. mais nag bu nekkoon ne diggante Iba Mar la ak Adrien Senghor du doon problème mais bu ñu nee gaal gi su ma jumul Grand Yoff la ne Adrien Senghor biir Grand Yoff kon même jour ba bu ñu fay tëggandoo moom vraiment loolu dina nekk loo xam ne lu doy doy waar la waaw comme nag ku ci ne jàpp nga sa date ñoom ngóor si mu juf nañu 500000 la ñuy teg Adrien Jax moom toxle na Iba dem na gaal ko ak 1 million ah dañ leen di ñaanal rek. parce que li ñu def mooy ñaanal leen yàlla ku ci nekk rek bés booba la nga tëgg nga lekk sa wërsëg maanaam réussir ko parce que loolu rek la ñu ñaanal parce que tamit amateur yi moom boo tëggee ñoom ku ci ne yaa sa biir xam nga fa la arrange ak fa nga bëgg dem bu keroog yow yaay sol sa daal demal fa sa bopp daal. ak ak waykat ba la neex tëggkat ba la neex Ah, yaay choisir <laughs> kon boog baax na ñu jógee Leewtoo point net nag ñu jeexalee ak Leewtoo TV Leewtoo TV dafa xëy dalal ki nga xam ne mooy May Ngoone Fall May Ngoone Fall nag nekkoon na écurie Thiaroye les chroniqueurs la si Sen TV ñëw nag wax na nag wax na nag si combat yi nga xam ni moom la amateur yi bëgg wax na si diggante Eumeu seen ak ki nga xam ne mooy Balla Gaye wax na tamit si Boy Niang Lac de Guiers moom daal décortiqué na combat yi nga xam ne daal moo nar a am saison bi waaw moom dëgg dafa xam làmb trop mbay Ngoné Fall ñu koy nuyu di ko ziar di suñu papa waaw ndeysaan man tamit dafa am lu tax ma estimé ko mooy euh, xam nga am réew boo ci dëkkee te nekkoo complexe di dund sa réew dafay am solo moom day dund sénégalais gi day dund culture bi day dund africain bi te loolu dafa am solo trop man bokk na ci ñoo xam ne damay inspiré wu ci ñoom yaa ngi dégg yàlla na ko fi yàlla yàggal def def ñaanal di ko ñaanal bépp doomu aadama wax na tamit xalaatam li mu wax tamit vidéo la ku ko bëgg setaan demal Leewtoo TV rek di nga fa fekk vidéo bi mais wax na xalaatam yaakaar naa làmb itam bu ci waxee war na wax parce que am na lu bëree bëri lu mu ci xam yaa ngi dégg kon defe naa daal moom mën nañu sax monument la ci wàllu xam làmb wala ci cosaani Sénégal sunu culture am na lu bëree bëri loo xam ne yàlla dénk na ko ko mu téye ko ci kon defe naa ku dem xool ko daal di nga déglu neex a neex maa ngi dégg sax wax naan xale yi léegi xamatuñu seen réew maa ngi dégg sax nee na ñu bëri xamuñu ak yaay waaw man day ak yaay Babacar moo tax ma xam ko war naa fa dem nag ah ah ak yaay da fay dem de ak yaay laa dëkk nag ak yaay ab dëkk la ak yaay ak mbomboy ak ndondol ak njamaan ak gaat ak tàllañ ay tuube man foofu laa dëgg mbaaraan dëkk yooyu laa dëkk de man bawal bawal pire laa. sa <laughs> <laughs> dëkk yi <laughs> dëkk Babacar yooyu la leen tàggoo dina jox dig daje suba dina am revue de ndax wala yàpp yaa ngi ilaa Touba ma allah donc ñu ngi si yoonu Touba bi dina jox dig daje suba incha allah si Touba euh, mais balaa boobu muy nuyu sama yaay mère Sow sama doom Mohamed Diouf di nuyu sama beneen doom bi Mansour sunu stagiaire bi. <laughs> di nuyu aussi Dadi euh, di nuy aussi euh, Astandine depuis parcelle ndax ñëw na tubaab bi moo ko indi jóge na Italie ñëw ñëw def si vacances chéri Khadija ah, Diallo <laughs> tëjati bravaay non dina ñëw soo jógee <laughs> soo jógee Touba incha allah di nga fi fekk say say say di nuyu samay doom Mame Diarra Penda bébé Fallou bébé Rokhaya di nuyu aussi junior euh, Eva Diallo waa Parcelle yi ñëpp maa leen di nuyu Babacar teg ak kan waaw kooku nekk fee ne Brésil. Cheikh Fall Cheikh Fall sama doomu baay bi tamit maa ngi koy nuyu. as daal nee ko man moom as tàndi man moom soxlawuma ay tiset moom sëriñ bi daal na ñëw comme ñibbisi nga maa ngi yàgg maan moom du ay tiset la xaar leneen la xaar lu nun ay borom kër lañu tiset arrangé wuñu kon ñu ngi nuyu ñëpp di balu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu tamit ki nga xam ne nii ah, xam fi ma fi ma yóbbuwoon ke ma fay fajoo fi ma calise woon sami bi clinique bi nekk cité kër góor gi dafa am koo xam dama fa jàpp turam muy euh, euh, ami jaata waaw ami jaata moom ndaysaan daa bokk si ñi ma doon taxaw foofu di ma faj maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax baax baax di nuyu personnel bi nekk foofu yëpp mais di ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ni ñoo dem Touba ñu dem si jàmm ñibbi si ci jàmm comme ni ñu ko waxee sànq rek di nuyu internaute yëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm mais tamit di nuyu waat sama waa dëkk rek waa ak yaay rawatina nag sama goro Lamine ngoom di rakku Taneg di professeur di jàngale fa la nga xam ne mooy ci lycée bu nekk Maabo mu koy nuyu bu baax a baax moom daanak la dëkk di nuyu tamit sama ay mag Modou Ndiaye nekk directeur de lecole fële ca njakal ak dëkk ak yaay ak magam Aliou Ndiaye moom tamit di jàngalekat maa ngi koy nuyu di nuyu waa ak yaay yépp tey Maître Pape Sène non Maître moom mooy numéro un kooku yàllaa ñu boole kooku moom du affaire de politique du affaire de ndomb tàng wala administration non non yàlla moo ñu boole wallahi la si ànd la boo xam ne yàlla rek a tax parce que da di nitu dëgg boo xam ne nii lu dul dëgg nekku ci moom di sama mag di sama mère mu koy nuyu di nuyu waa ndondol yëpp yëpp yëpp yëpp ak li ko wër di ballu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm mais di nuyu tamit l'international sama xarit sama rak Youssou Ndoye maa ngi koy nuyu bu baax a baax. <laughs>